dalleen ak jàmm mbokk internet AFT TV nga xam ne moom mooy aimé yi ak li nga xam ne mooy mooy dooleel groupe bi jërë nga xam ne nag mooy waxtaan si ak bëtër maanaam waxtaan ba xam plat yi tegoon est-ce ak est am na luñ ci war a changé wala déet waaye ki nga xam ne moom moo di àll nag fekkin woo xam ne nag maam ni ko gisee daal neexu ko ndax ku ne xam na ne àll moom képp na la ngay ko xam na ne mook ne moom mooy jabaram sax nag di gis naa ko nag mu toog ci óol bi nag ci kan la fi ne ko mu wone bu fi toogee rek xamal ne soxna Batoor la fi xaar na ne soxna Batoor moom picc mu nii ba am li mu bëgg daal moom mooy sëyam tas na na sama sëy tas na na sëyu ñëpp tas maam sëy bi li ma yàqal daal na ko ñëpp yàqal ndax ku ne xam ne nag soxna Badar loolu moo doonoon ay pexeem depuis ba mu tasee ba léegi ba digganteem ak sagar nag naqari lool ndax sagar nag sama mu ne wax sax nag naan sa Bator kii moom dof bii moom du nuyoo ko ah waxee dof dof boo xam ne jëlul ay comprimé daal jëlul waxal nekkate nag ki nga xam ne moom mooy sagar nag moom li nga xam ne moom la bëggoon mooy dem ca buntu bokkooj fekk nga xam ne moom mooy gorom ngoone pour buy génn mën a wax ak moom nag nee na ko nag yéen li nga xam ne moom ngeen ngoone daal yàlla na këpp ci seen kaw yàlla na dal ne moom mooy gorom ngoone bi comme amul lu mu wax te moom li mu bëgg mooy indi rek violence indi ay wax xam ne ko yow daal ay wax yoo xam ne daal wax yu jaxasoo la ngir bañ a tontu ci li nga xam ne moom la ko xam na ne nag sagar ku ne xam na ne xam na li li ko fi indi mooy daal seen diggante lépp li ci leen boole daal mooy jaxase nuñ jaxasee kër gi ak nuñ yàqe sëy ki nga xam ne moom mooy Ngoné bi mu jógee foofu nag la daal di ñëw fekk nga xam ne moom mooy Batoor ci waañu nag di wax ak moom ne ko nag yow li nga na nga xam ne nag li ngay taxaw mbaa li ngay jéem a dox di ko jéem a lijjanti ci kër gi lépp na nga xam ne ñëpp xam nañ ko waaye na nga xam ne nag yéene moom néeg la borom cay fanaan ki nga xam ne moom mooy àll nag nee na ko exactement li nga ma wax nii nag yow sagar loolu la ma ñëpp wax ndax ma duggee ci biir ba wax ko kood loolu la ma wax exactement ki nga xam ne moom mooy yaay Batoor nag ki nga xam ne moom mooy gorob Ngoné bi nag à grande surprise bi mu ñëwee ci kër gi fekk na nag xale bu góor bi nga xam ne moom la jiwoon pour jal ko ci kaw Lamine nag pour mu mën a manipuler yàq seeyam yooyu mu ñëw fekk ku génne ci kër gi nag laaj na ko loo fi yóbbu mu ne ko man yow laa seet pour ñu waxtaan ma man mu ne ko lu tax woo mu ne ko damaa amoon nag na maanaam loolu indi wu ko fi woon waaw ñàkk crédit tamit teewul mu woo waaye dafa am leneen lu mu doon dox loo xam ne daf ko koy nëbbu bi yaay ngoone ji duggee ci kër gi nag kenn ku ne xam na ne nag maanaam Lamine moom ko tey tey la gorob ngoone bi bi mu dugg see nag daal di woo ngoone laaj ko mu ne ko ah wala boog Lamine laa yaakaar ne moom la doon seet te ngaa dem laaj ko ba xam nga xam ne nag sa ñëw na nag yaay Lamine ji ñëw di ko wax wax ak daa tey daa bañ ko waxee information yi wax ci jabaram yëpp di rëy ak li muy garaaw garaaw teewul da cee tey maanaam daal tekk daal la may di observé nag bu baax a baax a baax baax nag ki nga xam ne mooy Marlo moom insomnie la amee ndax soxna Bator mi nga xam ne moom la nekk ci kër gi daal amut ak moom jàmm seen diggante neexut te mënut ci moom dara ndax xam ne moom mooy siis ba moo décidé ko ci gi ngir ñu mën a waxtaanal bu fekkente ne dinañ mën a jubóo wala dañuy continuer dàqalikoo loolu nag moo ko def problème bu mënutu a nelaw daal nga xam ne moom mooy na ko loolu bu mu la def nag question maam boobu daal li koy tracasser mooy man est sama yaay bëgg na bi nga xamante ne nag am na ay analyse yu bëree bëri yoo xam ne def na ko ci xew-xew ak information yoo xam ne am na ko li nga xam ne moom lay laaj jabaram daal maam question bi ko jaaxal te amul réponse bi daal mooy est ce que sama yaay bëgg na ma est ce que sama yaay bëgg na ma loolu nag lu doy waar ndax naka la nit nekk yaayam ba pare di posé bi question